wàllu koomam ci wàllu tàggat yaramam ci wàllu wérgu yaramam loolu yëpp dafa làmboo ak tolluwaayu réew mi ci wàllu politique. loolu nag moo sabab télévision Futur Média di ci ànd ak yéen en direct àllarba bu nekk tey ñu am si gan goo xam ni ci wàllu politique ràññee nañu ko ci lool euh, Mame Mbaye Niang lay wuyoo nekk jëwriñ ji nga xam ne moom la ñu dénk wàllu tourisme ak loisir euh, ci biir réew mi. moom la ñuy recevoir mbokk yi tey mu nekk itam comme ni ma ko waxee kàngam ci biir APR euh, ñu ngi lay nuyu monsieur le Papa Ngagne maa ngi lay fay. di nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan yëpp di ñaan yàlla dëgëral suñu làmmiñ ba wax biñ fi wax yëpp jëriñ réew mi. ci anam bu baax. ca tamit euh, lépp luñ fi wax mu lu ma fi wax man mu tegu ci dëgg. Hmm, jërëjëf. Mhm. alors Mame Mbaye ñi ngi la gis bu yàggul bariwul sax ci activité politique yi léegi lu ñu la ciy gis euh, lu bari. waaye tout dernièrement ci génn bi nga xam ne président de la république génn na ko rawatina ci Kédougou. Mm-hmm. ak ci Kaolack rawatina Kédougou. Mm-hmm. gis nañu bokk nga ci boobu délégation. absolument euh, mu nekk génn boo xam ni président de la république mu ngi koy def ci jamono boo xam ni daanaka mandaam mm, jeex na fu mu dem daanaka mi ngi tàggoo itam. Mm-hmm. fu muy dem aussi mi ngi ànd ak le premier ministre ak le gouvernement. Mmh. mais man sama question ci côté boobu mooy lu ko jiitu PM daf ko doon def. Mm-hmm. Amadou Ba mais mosuñu la ci gis ci wetu mm-hmm. Amadou Ba. Mm-hmm. Euh, ndax ñun ñoo gisul. wala yow yaa demul. lan moo ci am. waaw ah, jërëjëf Papa Ngagne euh, xam nga laaj moom. Euh, ni ñu koy laajee xëy na dafa dafa dafa am looy junj man duma PM dem na tournée effectivement secteur secteur euh, département yi mu concerné yëpp daf leen yóbbaale man bi muy dem département bi muy am rencontre ak ñi ma concerné sama directeur de cabinet moo dem parce que dafa fekkoon ma nekk ñuy pré di préparer tournée président de la république loolu la. Mbaye xam nga loolu ñëpp ñi nga xam ne dañu xamoon sa diggante ak Amadou Ba ci ñagas ñagas ak ay mm. wax ak ay def mm. loolu su fekkente ne lii dafa ñëw mm. dafa am loo xam ne mënuñu ko mënuñu ko mënuñu ko mënul nekk loo xam ne ni nga ko tontoo tontu bu gàtt boobu noonu noonu lañ koy jàppe cest à ndax la nekkoon ci seen diggante ci réeroo def ci am ba tey mm-hmm. wala amu ci non non euh, bon defe naa fàttali xuloo xuloo la nit da ngay dépassé man defe naa. waaw ah, dépassé bokk na ci nag. par exemple fu mu dem nga ànd ak moom aussi. ñu xam ni dépassé nga. non no non loolu ci wàllu politique après buñ ci bu ci wax ji eggee xam nga ni man ragaluma man ma mbay ku ma xam-xam ni bu ma d'accordul mhm. damay wax d'accorduma mhm. bi may mujjee def ak émission fii nii ci élection locale yi la nga am mbaax teg invité ma. parce que bari woon na ay lënt-lënt. bi ma fi toogee tamit li ma gëm laa wax. Mhm. sama àqulaay taala donc man lu ma d'accordul damay wax d'accorduma mhm. et dama koy assumer lu ma ci fekk ma nangu amul lënt-lënt sama diggante ak Amadou Ba amoon nañ ay jafe-jafe ñu dépassé ko moom ci boppam mu dem ci tele mhm. wax ni que loolu amul. te moom lim ci xam mooy est que man defuma dara. defe naa nag nit ki bu amee maqaama ak euh, magu yëkkati boppam ca waxuma ko mu dem ba ci télé toog ñu laaj ko ci te ko ci doon laaj sax ñu ko ci doon tudd mu ni ko yow sa bopp xam nga ni lii amul mais defe naa kooku bu la loolu doyul mooy wax dëgg yàlla nag du problème boobu ngeen seqoon Mame Mbaye donc Amadou Ba mooy seen candidat mais man ba léegi déggaguma fenn foo ne mooy sama mooy sa candidat gisuma ko fenn foo ko wax. mais mais jarul ma xam nga man waxi candidat yi guma ci. te dinaa la wax li tax ca xëy na xam nga li tax. déet man koy xaw ma. waaw non xëy na dégg nga parce que yéen da ngeen di saytu. Mhm. man bi président Macky waxee ni bokkatul du dem boo seetloo dama dellu gannaaw. man damaa toogoon fii sa télé. Mhm. nga ni ma Macky day def troisième mandat man la Macky du def troisième mandat. bu ko dee def sax duma ko jàppale. loolu ma dem ba ci biir. Mhm. après Covid bi ma bokk ci ñiy wax ni que ak lii réew mi di traversé. Mhm. jàpp naa ni. loolu dëgg mën nañ xoolaat. considération boobu bu fekkee ni que yoon may na ko ko. yoon am nëbbatuwuma woon may liggéey pour Macky nekk candidat. deuxième quinquennat. ca teguma ko woon ci sama coobare bakkan tout teguma ko woon ci sama leneen maa ngi ko tegoon rek ci bëgg réew mi mm-hmm. donc man ci projet boobu laa doon liggéey te képp ko amoon beneen projet ca nekkoon ci ñun man ak yow jaamaarloo nañ mm-hmm. nit ñi dañuy wax rek mais man ci biir majorité bi defe naa bokk naa ci ñi ëpp luñ jàppanteeg ñeneen parce que dama jàppoon ne que man projet bi ma gëm di ci liggéey ñoom xëy na ña ngay ruumandaat leneen ci suuf léegi nag nit ki boo préparé wul sa bopp ci dara. par exemple boo paree boo préparé wul ci jàppale Amadou Ba. déedéet soo pareewul wul boo jàppale pare. man boo ma bàyyee ma wax la di nga comprendre nee naa la benn projet laa amoon bi may duggaat sax ci gouvernement bi benn projet laa amoon mooy def sama kéemtulaay kàttan pour Macky Sall présenté wu. njariñu réew mi rek laa ci xool. xooluma ci sama njariñ xëy na moom da koy lor moom Macky Sall ci boppam da koy lor parce que am na lu mu koy am na ay problème yu mu koy indil mais njariñu réew mi rek laa ci parce que wax dëgg yàlla ci biir nag laa nekk. xam naa li ci biir xam naa lu ñu ñi xamul yëg naa lu ñu ñi yëgul damay gis lu ñu ñi dul gis ñi ñi bokkuñu. donc man ci loolu laa doon liggéey liggéeyu woon ci beneen plan. Mhm. ba bi président ne bokkul. man mënoon naa wax ni ni la fii la woo woote ay local Benno Bokk Yaakaar samp candidat ma samp fële sama candidat. noo mujj nan nga mujj. assumé ñu gagné. Ah, ah, ah, non ñu la xanaa ngay laajaat naan damay nekk. non non non soo soo mënul gagné Dakar doo naan damay laaj Sénégal. non loolu. loolu loolu moom. non mënoo boo mënta gagné Dakar loolu beneen wax naan damay gagné non laajaat moom xam nga moom. loolu moom kii ñu samp nii gagné wul woon Dakar. waaw mais woon sax bay gagné. waaw mais mais samp nañ ko te samp ñu la. waaw mais xaaral waaw moo tax moo tax ma wax la mhm. boo ma dégloo di nga comprendre donc bi ñu jéggee loolu. Mhm. man nee naa la damaa toog noppi parce que liggéeyuma ci beneen projet ñiy wax ni que candidat la ñu woon yëpp am naa ci ay xarit am naa ci ay wóllëre parce que pratiquement ñi waxoon ni que candidat la ñëpp ñi ci ëpp ñeent ñi bokk nañ gouvernement kenn ki nëbbuma ko sama xarit la c'est connu Ablaye c'est mon ami sama xarit la parce que. ci keppaaru ci saalu Macky Sall lañ xamante jàppante mu nekk inspecteur des impo man ma nekk contrôleur aérien aéroport ñuy dem leen te séq dem leen te séq jàmm ba yàlla indi li mu indi. SeneInfo International International